tënk mu leer ci baat yi ginnaaw jaar nañ ci noonu mooy làmp boo xam ni day leer diw ga koy taal xam nañu diw bu njëkk yàggul dara yàggul dara làmp pétrole xam nañ ko ni ñu ni koy ni koy jëfandikoo ni ko daan jëfandikoo fii njëkk làmp pétrole diw la woon gaz jaar na fi ay yeneen jaar na fi ba tey gis nga ko sunu làmp yi gis nga ni bokkut ak làmp bii nuy wax ni waaye ba alxuraan di wàcc ña ko teewe woon fa seeni xel toll woon noonu la borom bi di waxee ak ñoom ba nëga nag loola di jariñ mooy nga am sa ab fenêtre boo xam ni danga wut làmp pétrole wala làmp diw teg ko fa jël sa ak mees raw ko def ko ca taal ko loolu yàggul dara daanañ ko def boo ko taalee day saxar tàkk-tàkk li du taxaw ngelaw li da koy fowe nga wut ab verre teg ko ca ngir mu limiter la ngir tënkal la leer googu leer ga weer ba di tàkk moom it ñetti tàkk-tàkk diw gi day leer taal nga ko làmp bi day leer ak weer bi ko wër borom bi ni ka annaha kawkabun durri dafa mel ni biddiw bu yanj bu ne ca kaw di tàkk ñetti leer ay leer daje fi ay leer daje fi dégginu ñenn ci dégginu boroomi xam-xam yi lu ci wax ñu ni boroom bi dañuy misaal dañuy léebal ne leer gi muy def ci xolub jullit ba mu àttana jaamu yàlla nangoo jaamu boroomam nangoo jàng alxuraan gëm ko mi ngi mel ni Euh, nii nga defaree sa lampe bi daldi di koy tëkkale nii nit ki laata muy ñëw àdduna jullit bi laata muy ñëw àdduna li ko tax a gëm mooy borom bi da ko waajaloon def ci moom li ñuy tuddee fitra jamono ba muy wax alastu bi ñu ni balaa ñenoon balaa ñëpp fitre la ñu indaale ci àdduna bi ngay ñëw wala bi jullit bi bi muy ñëw ci àdduna yàlla da ko mooñaale ak ngëm yàlla nga xam ni day waaj moom jekk na ngir gëm yàlla noonu la dikke loolu moom la borom bi di ñu wax ni mi ngi mel ni diw gi nga xam ni boo ko taalee mu tàkk boo ko ma ngay leer ndax dafa indaale ak leer kon bépp jullit bu ñëw àdduna bi muy ñëw ak leer la indaale guy borom bi moo ko def ci moom bi mu ñëwee yàlla baaxe ko mu daldi gëm bi mu gëmee gëm gi yóbbu ko ci nag di jàng di xam di settantal di waaj ngir xam yàlla ndigali yàlla yi mu nangu ko moom la ñu borom bi di wax ni bi mu ak moom la borom bi di lépp làmp bi nga xam ni bi nga ci defee diw gi raw ci ak mees danga ko kos taal ko mu tàkk diw gi boo taalul mu tàkk wëlbati nga ko taal ko mooy yow jullit bi bi ngay ñëw ak leer nga indaale bi nga ñëwee ngëm yàlla dugg ci leer gi jafal leer gi boy ci yow nga nekkub jullit dugg gi mu dugg ci yow nag tasaaroo ci yow nga dib jullit mu yaatu lool ngay jëfe nangul yàlla xam ni yàlla li mu santaane des ko war a def nga di ko def alxuraanam ji des ko war di jàng di ko jëfe nga di ko jàng di ko jëfe yoonam wi mu tëral nga di ko jëfe leer googu nekkoon ci yow te ngëm yàlla gi def ko day daldi tasaaroo daj xol bi kapp fees ko del yàlla jaral la lu ne nga am li ñuy tuddee xas dë ak jublu dara dootul nëxal sa diggante ak yàlla benn dégg-dégg bu ñaaw dootoo ko am sa diggante ak sa boroom loolu la boroom bi di misaal ci déggiinu boroom xam-xam yi ni mooy veer veer bi nga xam ni moom la wërale làmp bi muy tàkk mel ni biddiw boroom bi dajale loolu ni nuurun ala nuur leer gi nga dikkaale leer ngëm yàlla gi ñëw waxtu wi dana xat lool waaye duñu ko yàkkamti ndax day am suivi dañ koy topp dañ koy topp ak xalaat yi gis gisi boroom xam-xam yi ndax danañu amal njariñ lool wa tilka al amthal nadribuha linnaas wa ma yaqiluha illa al aalimuun misaal yi ma tëral ci alquran nit ñi ñoo tax ma tër ko muy léeb yi ndax ñu xam ko jëfe ko daal ni ñi koy ñi ñi nga xam ne ah, boroom xam-xam yi bu ñu daan jàng alxuraan sax am na ci ñuy bu ñu rombee masala te xamuñu ko dañuy tiit ñu am jàmm ndax boole gi leen seen borom ci boole ci ñi nga xam ni kon ñi ko xamul duñu ay boroomi xam-xam te ñoom ay boroomi xam-xam lañu ba tax dana leen daan yóbbe ak tiit nit ki ñëw na ci àdduna jullit bi ci gëm yàlla ñëw na ci àdduna indaale leer gu yàlla moo ko ko mooñaale mu ñëw leer ga dugg ci moom ngëm yàlla ñëw mu gëm di jëfe di jàng ngëm gi daj ci ab xolam kapp boroom xam-xam yi ni ñu aaya bi loolu la ci borom bi di misaal ci làmp bi nga xam ni diw ga day leer boo ko taalee day leer ak weer ba ko wër day leer ñetti leer yooyu daje daje ci yow jullit bi nga am leer boo tollee foofu dangay ngay egg ca lañ doon wax ni jullit bi ki gëm yàlla ay jëfam leer la ay dugg-duggam leer la ay waxam leer la ab génnam leer la ak mujjëm ëllëg leer la ca àjjana mu ne ci jamono yi nga xam ne yaa ngi tollu foofu ak say leer yu bari yu tàkk booy yépp yépp jolli mu ne am na ci sawet koo xam ni am na ci sawet wet koo xam ni dara ci ak leer amu ko takkal nañ ko ay medaay ràng nañ ko ko tëggal nañ ko ay junjum àdduna bi yépp mu yore ko lu mu bëgg yàlla jàmm te ñépp di ko wër ngir dajeek moom ngir xam ci moom dara ngir dégg ci moom dara mu dund ba faatu musta su jootal yàlla benn su joot moo tax suñu boroom wax ni yahdillaahu li nuurihi man yasha leeram gii muy wax nii muy leerug baatinam gi ku ko soob la koy jox ak nu sab dayoo toll ci àdduna loo mën a mel loo mën a takk te su sa boroom moo tax bu la yàlla baaxee def ci yow ak njub nga jóg gëm ko jàng alxuraan xam ko di ko jëfee nanga nga sant sa boroom ndax nuuru naa laa nuur leer ci kaw leer nga dëkke ko te leer googu boroom bi firndeel ni ku ko soob rekk la koy jox sunu boroom mu soob ko mu jox la ko kenn du ko fowe moo tax mu ni wa yadribul amsaala linnaas misaal yi muy tëral léeb yi muy léeb nit ñi rekk a tax mu di ko léeb waaye wallahu bi kulli shay'in alim suñ boroom nag moo xam fa muy defug leeram ak fa mu koy ñàkk a def ñi mu jubal moo xam lu tax mu jubal leen ñañ ne ca safaan ba moo xam lu tax ñu ne ca safaan ba loolu ci aaya bi déggiinu ñenn ci boroom xam-xam yi la beneen déggin ci dégginu boroom xam-xam yi nga boo génnee sa kër jëm si fii wala feneen foo mën a jëm lu tax bi nga génnee di dox daloo ci kaw dara lu lay gaañ daloo it ci dara looy gaañ nga dox dem dellu si dara xewul lu tax leer leera la may loolu leer nag ci kàllaama arab bu ñu ko waxee mooy nuur dana ko firi ak nuur mooy leer leer zahir dafa am leerug baatin dafa am leerug zahir mooy jant bi ñu gis weer wi biddiw yi lu ci nekk leer la mi ngi tax nit ñi di jóg leerug zahir ak leerug baatin leerug zahir gii nag arab da koy wax ni mooy mooy lu ñu mën a teg leer gu ñu mën a teg bët mooy leerug zahir yàlla nag kenn tegu ko bët te leer la leer ak yàlla ga dafa bokkul ak leer yi xew leer gi ñuy wax leer yi ñuy wax mooy gi nga xam ne borom bee ko bind def ko fi baat bi nag dees na ko àbb bu zahir bi di ko jëfandikoo ci yeneen anam yoo xam ni du leer gu ñuy gis bu ma nee bu ñu nee kalaamun lahu nuur wax ju leer ndax leer gu ne nàññee gu ñuy gis ñi déedéet dañoo àbb baat boobu jëfandikoo ko ci lu wér lu bér lu ñu war a wone bu ma ne sëriñ Muntaxa mooy leer ak réew mi ndax leer gu ñu nañ la gu ñuy gis déedéet dafa am yu dëggu fi moom yoon mu xal jaar ci ànd ci nit ñi di ci dox muy dëgg te leer bu réew mi tolloo ci ay jafe-jafe ak lëndëm lëndëm ak coow bu àddoo réew mi dal ñu ngi kon mooy leer ak réew mi ndax jub gu mu jub ak yoon wu mu sóobu ak réew mi foofu dañ ko fee àbbu jëfandikoo ko fi muy leer boo xamee ni waxtu woo xamee ni jant bi fenk na waxtu woo xamee ni jant fenk na walla wax ba sox bu guddee waxtu wu jant bi sowe mu lëndëm këriis weer wi fequl biddiw yi asamaan si niis ku nekk ci nit ñi da wuti leer goo leerloo da wuti làmp leerloo ko ku ne ku ne na nga mën a am làmp ba nga mën a am di nga ko wuti leerloo ko waaye bu bëccëgee bu bëccëgee ba jant bi fenk ñëpp dañuy daje ci fay seeni làmp ndax doyloo loolu leerug yàlla ji muy jant bi kenn dootu taal sa baam ndax leer ak yàlla gi doy na jant bi fenk na loolu mooy leer gu zaahir goo xam ni dañuy won ni kat ak leer ak baatin am na bu ko defee ni ñu doyloo leer ak zaaxir bi mu jant bi ba ku ne fay sab làmp bu jant bi fenkee noonu lañ war a doyloo leer ak baatin gi nga xam ni ànd na ak leer ak baatin di feeñ leer ak baatin gi nag mooy yoon wi yàlla tëral alxuraanam ji mu wàcce nu war koo jëfe war koo jàngat war dox ci tërëliinu yàlla yi yàlla yi mu tëral la yàlla tëral mooy leer baatinam ji mu mel ni borom bi dañuy wax naa ni ngeen doyloo leer bu zahir gii na ngeen ko doyloo leer ak baatin gii kenn mënu ko ñàkk ndax fay ngeen seeni làmp jant bi fenkee kon bu tëraliinu yàlla dikkee na ñëpp bàyyi seeni tërëliin te dox ci tëraliinu yàlla wi loolu déggiinu ñenn ci boroom xam-xam yi la ñu ne aaya bi suñu boroom subhaanahu wa taala lim ñu ciy wax mooy nit ki ni mu leerale fenêtre bii wutub làmp teg fa taal ko lampe bi di tàkk mu am verre bu ko wër mu mel ni ab biddiw di tàkk ñetti leer yooyu ni mu leerale fineetar bi dara ci ak lëndëm nekkatu fa noonu la yàlla di leeralale asamaan si ak suuf leer gi yàlla def ci ak diggante asamaan ak suuf kepp ak leer gi nga def ci diggante fenêtre bi loolu dégg dégginu ñenn ci boroom xam-xam yi la aaya bi allahu nuru samawati wal ard yàlla mooy leeral asamaan si ak suuf leeral gi muy leeral asamaan si ak suuf si nag mi ngi mel ni ni nga leerala yow sa fenêtre boobu leer yi fi daje ba ak lëndëm nekkatu fa noonu la yàlla leerale asamaan si ak suuf daal di ciy tegal nag ni yahdillahu li nuurihi man yasha leeram googu nag yàlla ku ko soob la koy jox moo tax ba nëga ni ñi nga xam ni gëmuñu yàlla li leen teree mën a gëm yàlla mooy leer gi nga xam ni yàlla ku ko soob la koy jox te amuñu sens amuñu sensu jot ci leer ak yàlla googu muy leeru baatin bi mën a dégg alxuraan di ko jëfe tëralin yi ci yàlla tëral ñu xam ko di ko jëfe mu loolu mën leen a daal mënuñ ci am loolu ñàkk sens dal la ci dal na leen yahdillahu li nuurihi man yasha wallahu bi kulli shay'in alim misaal nag li ñuy wax nii nag ay misaal la walay léeb la yoo xam ni nit ki da ko war a jàngat xam ko waaye leer yàlla ga dëgg du leeru làmp bi ñuy wax waaye leeru làmp bi lañu xam ba tax boroom bi di ñu ci misaal leeram ganamu a mel misaal la rekk walla wu léeb la rekk dañ ko war a jàngat xam ko dafa dal kenn ci boroom woykat yi ñi ma woy ci arab lool benn buur xam nga ay léeb ak i xissa daanaka xaw naa fees alxuraan ji lu mat ñeent fukki léeb wala ñeent fukki misaal yi ak benn mu ngi ci alxuraan yépp di yu ñu war a tekki mu defar ak xasidaam dem ci ku ñuy wax amirul muminin buur bi fi ab buur la woon ci jamonoy lislaam booba baatub xalifa xaw na ñu di ko ko woowee mu defal ak xasidaam gu rafet ñëw di ko ko dëgtal waaye bi mu koy tagg ba ni ko ñeme ga nekkoon ca ku ñuy wax amr tab ga nekkoon ca ku ñuy wax xaatim ak lewet ga nekkoon ca ku ñuy wax axnaf ak ñaw ñaw ga nekkoon ci Ilias ñeenti melo yu rafet yooyu yëpp yow daje na ci yow am na ni ñu koy fekkee mbooloo moo dem fekk fa koo xam ni du bàyyi weer ci benn fan kenn jóg ni ko yow dangaa yabaate xalifa bi ngay wax kii li nga koy wax day moroomu ñi ñi nga koy tëkkaleel day seen moroom koy ambre kuy xaatim kuy ahnaf kuy iyaas ñi ñan la ñii luy seenu dayo lu ñu def te xooloo soldaaram yi ñaata amr ñoo ci nekk ñaata ay jàmbaar yu ñemee ñoo nekk ci soldaaram yi nga taxaw fi naan ko ah yaa tabe ba mel ni kii yaa ñemee ba mel ni kii yow da ngaa yabaate jataay ba yàqu jataayu buur nga defar sa xasiida mu rafet nga ñëw di ko ko dégtal nit ñëw gaaral ko wax lii nooy defati bu sëgg waaye xel mu rafet xettili ko mu sëggi ne ko laa tunkinu darbi lahu man dunahu wu sharudan fi nadaa wal ba'si fallaahu qad daraba al aqalla li nuurihi mathalan min al miskaati wan nibraasi xasida gu neex la woo mu taxaw ni ko ni leen gis ngeen lii ma wax nii ci buur bi bu ko kenn weddi xam naa ni tollawul ñoom dayoo waaye li ma wax misaal la rek misaal rekk la moo xam ni fees na àdduna nib lay ñëpp a ko xam foo ko wax ñu xam ne lii misaal la rek loolu rek laay wax te sax yàlla ci boppam leeram gu màgg ga ba mu koy misaal ci lu ko yées la ko doon misaal ci làmp diw wala làmp pétrole ak fa ñu koy teg la doon misaal leeram gu màgg googu nga xam ne jenn leer tullul ni moom loolu ngir ñu dégg ci ni ay misaal ak ci lépp ci li gën mën a jox nit ñi xam-xam la bokk yoon wu gaaw la ci tasaare xam-xam rawat na li ñuy wax amatu naas ñi nga xam ni moom noonu rek la euh, seenu njàng xawuta deme noonu loo leen di wax wax leen ko ci ay léeb ak ay misaal moo tax nga fekk alxuraan daanaka xaw a fees dell ci ay léeb ak misaal yooyu borom bi dafa bëgg ñu di ko tekki déggoo muy wax naan masalu dina taxasu min dunillahi awliya ka masalil ankabut taxasat baytan wa aw awhana al buyuti la baytul ankabut misaal la ci misaal yi ñi nga xam ni ñi ngi jaamu keneen ku dul yàlla def ko seen kilifa ñu ngi mel ni jargoñ moom mi jëlub néegam def ko defar am néegam néegub jargoñ lu ko gën a doyee ji ci zahir xes yi bi ñu koy def euh, jargoñ fu mu lënd bantu bale sax yàq dem néegam néeg ba fa fa fa euh, fajalu ko tàngoor fajalu ko ab sedd fajalu ko dara munu lu gaaw a yàqu doye di lool yàlla ni wa inna bu buyuti la baytul ankabut gis nga néeg bi gën a doye di ci néeg yi mooy néeg jargoñ wala kër jargoñ loolu xam nañ ko ndekete yoo xam-xam bu bees bii di wax caay li ñuy tudde ilmul xasaraat mooy xam-xam bi jàngat ndundat yu sew yi ci suuf saxal na ni jargoñ ci bindeef yi nga xam ni duñu dund mbooloo lañu bokk foo fekk lënd gu ñu ràbb ba mu rafet ñaare benn jargoñ dafay fekk du dund mbooloo ñaareel ba jargoñ bu jigéen ji te ay bi dafa dafa leer gis nga indi na xam-xam bu bu doyoon waar ndax borom bi fu muy wax ni ittaxasat arab noonu lay waxee buy wax ak jigéen ittaxasat bu doon góor danaan ittaxasa defar na kee mu ni ittaxasat jël na moom jigéen ndekete kon jargoñ ji ràbb kër di fa ne ndekete jigéen la dolli ca xam-xam bu bees ko fee feeñ wane ni jargoñ bu jigéen bi moo ëpp fuuf bu góor bi ñaar dolli ca ni jargoñ soo ko suñu soxlaantee ñoom ñaar lay tax ñu amal njaboot bu ñu soxlaantee bu góor bi bu dikkee lu ne dina ci dugg ngir bu jigéen bi nangul ko dana ko feccal dana ko woyal dana ko neexal ba mu nangu ndax moo ko ëpp doole fuuf te fu mu ko gis da koy rey waaye bu nangoo ba ñu am ak njaboot ba ñu am ak njaboot bu ñuy noppi rek jargoñ ju jigéen ji day daal di rey jargoñ ju góor ji seetal googu kër doye lool yamu ca am na ci yenn ci ñoom yoo xam ne danañu nangu sax mu ne fa mu ne fa mu ne fa waaye bu fa nekkee ab diir ba doom yi juddu li muy njëkk a def mooy rey ko jox doom yi rey kër góor gi jox doom yi loolu yéesati doom yi ci seen bopp bu ñu juddoo nen yi bu ñu tojee bay man nekk ay yaraqa lañ koy tuddee sax yu ndaw lay tàmbalee diggante boobu ñoom seen biir doom yi dañuy lekkante ba ku ca ëpp doolee man ca rek des fa waaye ñëpp daanaka dañ leen di lekk bu ñu leen lekkee ba loolu jeex ba ñu màgg ñoom jóg dañuy daldi di sot sotoo seen yaay rey ko loolu xam-xam bu bees saxal na ko moo tax borom bi wax ne inna awhanal buyuuti la baytul ankam kër gi gën a doye di néeg bi gën a di ci néeg yi mooy néegab jargoñ loolu ba ko borom bii wax yàgg na xam-xam bu bees saxal na ko ñuy tuddee al usra la ankabutiya kër euh, famille wala dundiinu jargoñ loolu misaal la mu yàlla di wax bu yàgg ni ñi nga xam ni gëmuñu yàlla am nañu yeneeni lu ñu samp wala lu ñuy gëm lu dul yàlla seeni jëf seen lañuy def moo kër jargoñ ji ñooyam dara amul ca njariñ te xam nga ni kuy jaamu du dul yàlla bu ëllëgee loola mooy taxaw ni la man kacat ma man sama yoon nekku ci toppoo ma woon de xuloo ba foofa alxuraan nettali na ci lu bari ni jaru goñ ji def këram ba ku mu séqal doom yi si doon nàmpal seen yaay bu ñu màggee dañ koo rey moom soxna si bi mu soxlaa ba noppi daa rey gan sax weñ walla lu dox ba dugg ci kër gi da koy rey inna awhana al yuuti la baytul ankabut kër gi yées ci kër yi mooy kërug ankabut nee na waxtu jot na wax euh, thème bi day am si bi dañ koy topp ndax ahlu tasawuf ni ñu déggi aaya bi war nañ caa yegg wax ba xam aaya bi kon ay boroomi xam-xam ñoo doon gëstu di gëstu di jàngat aaya bi allahu nuru samawati wal ardi di aaya bu baax bu mat a teewle di ko jàng ubbi kaamil bi tiim ko di ko jàng xam ko leer yàlla yi day daje ci yow yal na yàlla boole leer yépp dajale ko ci suñ kaw te fitra bi mu ñu bindee nu di ay jullit yàlla na ko saxal ba ñu faatu ci bi barkati seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ fi dellu ci waatee insha allah yeggalee allahu nuru samawati wal ard wassalaamu aleykum wa rahmatullah